mais bu dëgg lalee charte yi rek Karim lenn mënu ko tere mu bokk. processus si dëgg rek la ñu dox. ñun rëq-rëq yi am ci dëgg gi moo tax ñun ñu am position bi. kon processus bi yaakaar ngeen ne à tout moment war nañ ko mën a interrompre fexe ba Karim bokk. xam nga bu ñu toogee di waxtaan dafa baax ak fi réew mi toll jafe-jafe yi Sénégal jànkuwanteel nit ñi taxaw xalaat PDS mosul wàcc si li mu nekk. donte ne nag jamono nous étions seuls. 2016 la ñu def livre blanc bind lépp luy rëq-rëq yu nga xam ne ba tey nii moom la ñuy pointé du doigt ñi ànd ak ñun ak ñi àndalul ñun ci processus électoral bi dans son entièreté euh, am na jamono ñu dégg ñu on se retrouve dans des pôles dans yu nga xam ne nii nit ñi dañuy d'accord bu hmm. ñu xoolantee entre sénégalais ban sénégalais ñi nekk ci nguur gi ak ñi wujje ñi ñooy taxaw ñu xool la yàlla rek tax ñu ne la ah Karim kat ko teg du dëgg du yoon injustice ñëpp ko d'accord opposants yi gën a radical sax di ànd ak ñun dégg ngeen leen ci seeni meeting ñu taxaw di poser ay problème di poser ay doléances jël problème mu PDS dëxañ ko ci am na wala amul loolu moo am Sénégal donc juge bi am na droit mu dem mu porter plainte tribunal chaque jour mu ngi am ay procès ñu ne dëgg la wala du dëgg boo kontaanee nga dem def recours nga nga toog ku mer ku ñu daan mu dem def recours am na ay procédure de recours yu am donc y' a pas lieu de débat ñun dañu bëgg mu leer ñun Sénégal depuis vingt ans ñu ngi ci crise politique bu nga xam ne nii tey être dafa toll à son paroxysme. depuis vingt ans depuis vingt ans ñu ngi ci crise politique. je vous le rappelle lu suuxatoon assise nationale yéen a ngi fàttaliku recommandation assise nationale lu ko suuxaloon. Mm-hmm. où sont les assisards ils ont gouverné le pays pendant douze ans. am na ci ñu une partie. ñeneen ñi ba léegi ñu ngi réclamer. mais la trame de fond des des assises. maa ngi ñëw appliqué ko ba ñu dem ci CNRI. ñi ci ëpp c'est des membres de la société civile. Mm-hmm. des gens qui sont à la périphérie des vrais partis politiques ou coalitions de partis. mais la majeure partie de ceux qui ont porté les assises n'ont eu ci pouvoir bi waaw où sont leurs promesses et engagements qu'ils avaient pris lu ñu ci posé comme acte. mais on a fait table rase depuis 2012 à aujourd'hui sur quoi se fonde la politique au Sénégal loo fi lu fi am réellement politique prenez les gens qui ont craché sur l'opposition sénégalaise il y a trois mois il y a six mois sur les mêmes questions que l'opposition n'a jamais cessé de poser ana ñoo ñoo ñëwaat ànd ak tey opposition Sénégal hmm. parce que c'est-à-dire dañu nekk ci réew moo xam ne nii euh, c'est plus de la politique professionnelle de l'entrepreneuriat politique <laughs> mais le PDS s'évertue à être constant dans son parti xam li mu yor continuer projet ku mu neex nag nga def politique ak nu la neexee ak fu nga ko bëggee def ak yoon yi nga bëgg jaar pour nga def politique